wala ak ñi mu àndal loolu du dialogue kon bu ñu wootee dialogue ñi nga xam ne tam ay républicain lañu parce que ñëw wuyu dialogue ça veut pas dire que jubóo nañu Khalifa Sall xam naa li mu bëgg mooy ñëw toog fii bi bu ko bu ko mën a ah. kon moom mais mais bokkuñu gis-gis borom bokk gis-gis a ngi ne ne Pape Diop Mamadou Diop Decroix keroog nee na mooy moom moo yor xalaat yi rafet yi pour pour man fii ci place donc ñi fi ñëw ñi fi ñëw ànduñu ci politique ak xalaatu doomu daara yi bi donc répondre à un dialogue il faut avoir beaucoup de courage